makaarimul axlaaxi mbakkaanu yeem doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji ko waral mu bare ay xame doomi sëriñ la dib sëriñ bu yaarame rafet ji ko waral mu bari ay xame murit yaag tiijaan ya ñañ fay dajaloo ñam yey jalaañoo nee na Cheikh Alassane dafa yéeme nee yéeme nee na yéeme yéeme seen yéeme yéemul ci ñun rek yéemul ci Touba rek fépp la sëriñ Alsaan niñ koy gërëme di ko safoo noonu loolu ngay dégg àdduna yëpp di ko wax sëñ Alsaan dafa yor melaw woo xam ne melaw laabiir woo xam ne melaw ndimbal woo xam ne li ko ci yàlla defal defalu ko ci ñu bari moo tax fu mu tollu macha allah kanam rek lay jëm te itam loo gis rek ba demee ba defee ne kanam la ci moom lu ko ëpp ma nga ci kanamam nee na yàlla moo ko bind noonu yàlla bu la naree dimbali ndimbal lu mel ni lii mu ko dimbali daf koy jox jikko ju mel ni jii mu ko jox jikko ji ko yàlla jox ku ko yàlla jox rek yàlla nar na la dimbali àdduna ak alaxira na ñu ñaanal danañ la ñaanal waaye yow itam nag na nga ñu ñaanal bu soobee yàlla fi nga bëgg a yegg yàlla dana la fa yóbbu incha allah. barki dem boo njaay la sëñ xabaan sa doom sa mbokk bi ngeen bokk sëñ Fallou may a sa baay rek laa bëgg bëgguma kenn waaye damaa gëm ne yaay sëriñ Fallou dama laa maam daal nga jugg man man déggu mbéew dellu sama cosaani maam Oh. ñëw na làmb ji mbar dootu bëri doom bu niroo bàyyi jo wàcc na ne Serigne Fallou bu dee yow mii ay Cheikh Abdou Karim naa dugg bis ko kii soxna su baax si fekk ma rek dugal ma daw sama yaram bi di di di feddale cofeel gu rëy gu ma la ëmbal nga ëmbal ma ko it saa yu ñu waxantee rek sa wax kàddu yu njiitu rek mooy namm nañu la xam nga su ma demee ba am loolu ci yow lu rëy la ci rawatina nag jamono ji yàlla tàbbal ma ci ci démb ba léegi ñu am mbégte xam ne ñu ngi ñëw ci yow muy ay feddalante yaa lépp loo xamante ne mu ngi may dal ci yoon bi loo loo waxoon la waaw man ñëw naa fi gisoon ngeen ma ñëwaat naa fi gisaat ngeen ma ma fiy ñëw ba tey ngeen gisaat ma ku wàññeeku xam nga ku yokk xam nga te yaa ko fi waxoon sama waajur wu jigéen jàpp ko ndax benn vidéo boo wax ne dafa mel ni almet nga sunu xose tàkk-tàkk ba cofeel googu nag sëriñ bi daanaka ñi la ko ëmbal ci réew mi bari nañu fa ma dëkkee fële ca almadi mbooleem sa taalibi ñu ngi saytu sama kaaraange ndax xam cofeel gi nga ma ëmbal ba cinq cent mètres ci périmètre ñëpp ma jox gëdd ndax sa jëm maa ngi lay sant bu wér di la wax ni nag lenn rek laa bëggoon nga téye ko aajowul tontu xarit lu mu ne war na ko wax soppeem maa ngi taxaw temb wut wut réew mi dama la ko wax nga nga dégg ko rek lii rek laa bëgg nga dégg ko waaw waaw moo tax ma ne na ko dégg rek ndax moom njaaxaanaay la tëdde ku nekk ci réew mi rek bëgg naa am lante ak yow ñi ñi jiitu ak ñi bëgg a toog seeni siis man soppe la war naa rekk yëgal la bëgg te alhamdulilah melo wi gën melo wi gën boo ko yoree mooy gën boo melo ko yor melo wi gën nga xam ne ku war yor moom nga war a yor xam ne ndax kuy dimbali nit ñi te yoroom réew de ndax kuy dimbali nit ñi te yoroom réew de moo yoroom réew boo yoreem réew waxi sa xol ak sa xel yaatu na te rafet rafet boo xam ne nga wone ko li nga wone ñu gis ko dafa doy tegtal ndax nit ku nekk dafa am luy tegtalu ci moom moom mu nga xam ne moom lañuy ñuy xamee ne kii lii la waaye yow de am nañ ci yow yaakaar de nee baat bi nga wax ne boo ko waxee lu waru cee tontu nga yëgal ko rek mu bàyyi noonu waaye nee nag li nga wax mun cee ñàkk sànni ay baat kàddu yi ma ci sànni mooy yi nga xam ne moo nekk rek melaw ku mën a yor am réew melaw ku mën a yor ay réew sax waxuma benn moom nga yor baax ci nit ñi yërëm leen bëgg leen yéene leen ñu am jàmm lu ne nga leen ko defal loolu rek sëñ Alassane mooy si liggéey moo la yóbbu ba nga yegg ci fii nga toll sa melo rek la ko yóbbu say jikko rek li nga bëgg nag ñoo ngi ñaan ci yàlla nga am ko ni nga ko bëggee rek gii de sëriñ bi sëñ Fallu dafay jëmb lu baax lu ne bu dee jàng alxuraan bu dee julli bu dee woor bu dee julli ci yonent bi sallallahu alayhi bu dee dimbali koo xam ne bu loxoom jotul ginnaawam tamit am ay soxla loo ci xalaat rek sëñ Fallu def na ci lu ko fii ci nit ñi moo tax nit ñi ñu yaakaar ne luñ fi ñaan yàlla dana ko nangu sëñ Fall dafay def lu baax ba ni di saf sàpp ak lu baax moo tax ñu am yaakaar ni luñ fi ñaan ak yàlla dana ko dogal yàlla danañ ci dimbali moo tax ñu ngi lay ñaanal bu baax yàlla sàmm la ba fi nga bëgg a yegg nga yegg fi amiin Mbakke jërëjëf seen karim borom makaarima laxlaax ñam yey jëlaañoo day dagan tey tegaloo dongom ya lool di leeral seen kanam bëkkun fataaju ñam du gantumaa ko xam dongoom ya lool di leeral seen kanam